muy doom ci Ousmane si ak soxna Fatoumata Wade Wele Seydi El Hadji Malick Sy mu nga gañi si àddina sa Gaya jegeeg Dagana ci atum 1847 woy juróom bu góor di Ousmane si mi nga xamante ni faatu na laata muy daal di gañi si àddina daal na sàkku woon ñu jox doomam jiile turu sëriñam di Gaya Thierno Malick Sow bu fekkee ne rek góor la di ndigal goo xamante ni nag woy juróom bu jigéen te teggiwu sa dara ànd cekk ndijaayam Alpha Mayoro Wele daal di ko jël ma moom di El Hadj Malick Sy dugal si moom yar bu mucc ayib si noonee nag sala jàng alxuraan dugal ko ci dënnaam bi mu nekkee tout tànk tàmbali nag di wër dugg dëkkaat dëkk di jaxaat ci yoonu lislaam muy penk ba soow tàmbalee gëstu li nga xamante ni moom mooy diine di rupp ñaar fukki at ak juróom loolu sax tax ba mu am xam-xam bu mucc ayib ci wàllum diine lislaam maam El Hadj Malick Sy nga woon sa Mauritanie jot na faa sanc ak ca Ndar Géej ci atum 1884 mu jóge fa dem ca Louga ca piir laata muy nag ñëw toog si Tiwaawan ci atum 1902 njàngum alxuraanul karim nag mu wéyal ko ca Jolof fa jegeek Sagata ak ndijaayam ji ñuy woowee Amadou Sy bu joge foofu daal dem sa Fuuta ca cercle de Saldé daal di jeexalee li nga xamante ni moom mooy tàggatam ca Podor Serigne El Hadj Malick Sy njëlbeenu yoonam mu dem màkkatul mukarrama ci atum 1888 ba mu fa jógee nag sëla ñëwaat ak mbubbam xalifam ci tarixa tijaaniya Seydi El Hadj Malick Sy daal dina tas tasar li nga xamante ni moom mooy tarixa tijaan ci centre urbain yi daal di nag taxawal ay jàkk ay daara ay bërëb yoo xamante ni ñu ngi fay jàng li nga xamante ni moom mooy diiney lislaam diglay borom bi subhaanahu wa taala ak yonantaam sa waalo ca kayoor ca fuuta jolof ak ca siin saalum ci afrique nag subsaharienne Serigne Seydi El Hadj Malick si def na fi lu bari ndax nag lislaam gi ak li nga xam ne mooy tarixa tijaniya daan na ko fi tas dugal ko bu baax a baax ci gox yi goxaat yu bari ci tarixa gi nga xamante ni ki ko taxawal di Ahmed Tijani maam El Hadj Malick Sy daal dina dëddu àddina ci weeru juin atum 1922 ca Tiwaawan foofu lañu ko denc ها قيل والدها سكران من إثم